jëf mbokki internet yi jërëjëf mbokki amateurs yi tey nag ñoo ngi ci arène nationale kan moo xewle burgeel bu mag bi kan moo xewle suñu wéyjur mu di alaaji xaadim sàmm mu baax mi ñu di ko ñaanal rek yàlla yëg ko ak wér te guddal aw fanam bàyyi ko ak njaboot gi ginnaaw bi mu serviré la peuple sénégalais nekk à la RTS ba jël li nga xam ne moom mooy retraite am tey nag di ñëw fi nga xam ne moom mooy arène national di fi indi ñaari drapeau yoo xam ne ca dëgg-dëgg war na mën a tax Sénégal bu ci nekk ñëw wuy si ko drapeau bi ci njëkk mu ngi ko duppee le gardien de la constitution le président de tous les sénégalais son excellence le président Macky Sall jël benen drapeau tout de nga xamante ni que mom moy soxnam umul fuqara di ajaratu Marème Faisal mu bax mi jël rek combat bu am solo bo dox ci digënté Aliou Seye numéro 2 ak ki nga xam ne moom euh, di combat bo xamné deug deug amateur yépp a koy xaar kon mbokk yi dañu ànd ak yéen ànd ak Bour Gueweul Cheikh Omar Gaye Fatim Diop da baax dugg ci biir arène bi wan leen ambiance tey lan la ñaari mbër mbëri indi waaye wan leen ay bëre yu neex dama wax ne bu ñu noppee jox leen combat yi bu ñu noppee jox leen li nga xamante ne que moom mooy làmb en ligne ngeen dund làmb ji xool autorité yi naka lañ ñëwee ak naka lañ ko wuysee dama wax ne eh combat bi tey dina am raak dina am cokki dina am bëre ba dugg baat vocal kon gars nañu ànd ñun ak yéen dugg ci biir. ስለተማላ ولمن Thank you. se hará a no no no jàkkaarlool Carlos Bueno Maodo Kana ewo e Maodo Kana yor léegi ah Fils ngi door ci suuf Maodo Kana ngi wut a waaye ba tey jàppagul Fils de Max loxo ma ngi ci ngem Maodo Kana da galgal lan mooy am lan mooy am Maodo Kana Fils de Max <laughs> la ilaha illallah ah fils de Max papa ji jóg na papa ji jóg na Cheikh Omar papa ji jóg na waaw jóg na de Thank you. am sita am sita ndeysaan mooy njool mi ak pakala ak pakala am sita mooy njool mi pakala ngi door ah am sita fayu na quatrième combat de la soirée eh am sita bëgguma loolu am sita moo nekk Bosco Sow am sita bu Bosco Sow Bakara moo nekk Falaye Balde ndeysaan Buur Sine ngi noonu moo doon tuus mooy bëre combat bi moom Buur Sine bu am Sine moo ñëwoon ginnaaw Bakala ngi dox ci kawam moom am Sine arbitre arrêté bi am Sine mooy njool mi pakala mooy ndaamali pour waaye ñoom ñaar tel nañu wax am si ta pakala falim jot da baax hey hey si ta pakala koy gëdd pakala koy gëdd Fatim pakala ndaamalu sobla ah. non ndaamalu sobla pakala mooy dox ci kawam pakala am si Amsita si ta moo nekk eh amsita si la na mel dalul Fatim ba tey non dalul xeex bi jaaragul yoon de xeex bi jaaragul yoon déedéet njool bi ba nama ndax ma day wàcc ay tànkam da ngay wàcc say tànk boo sigee mën nga ami jafe-jafe tànk yi ni mu taxawoo baaxul buur waaw taxawul parce que dafa wàccul ci ay tànk fan tànk yi ni mu taxawoo ah. mais Pakala ñeme na ko waaw ñeme na ko ñeme na ko buur da doon yooru mu génne koog épercule. Pakala boo xoolee takkul benn galaaj xoolal xoolal. Pakala yeb na ko ah. lii daal lañ naan njool mu tooy. njool mu tooy baaxul Fatim. njool mu tooy baaxul buur. <laughs> ma est-ce que jàppuñu ko ci galaaj da ah, kenn jàpp ko waay buur. Ah. kenn jàpp ko buur. kon am c'était Pakala. eh Pakala ngi dóor parce que xeex ah, cooki ba cooki Fatim cooki cooki Fatim lu njool mu tooy Fatim eh. lu njool mu tooy da loolu mu saf sapp la mu saf la ah, am Siteu njool mu saf la eh xaax ba cooki Fatim xoola cooki baka la maa du daanu Fatim eh ba Fatim mu baa ngay jolli Fatim da koy door mu daanu yëf yaa ngay tàmbalee neex waaw dafa mel na kor la mën kor kor la mën kor la mën kor la mën arbitre na ardo lu xew Pakala dem na Ardo. premier Ardo de la soirée. premier Ardo de Pakala félicitation Pakala. wala ngay jokkaati daw di génn li buur wax. wala gis nga nga gis gis nga am njool da koy cokkaas mais da ko bëgg a gëdd am njool kenn ko gëdd gis nga. gis nga ah, Pakala door ko. Pakala door mu daanu Fatim. làmb war a war na Pakala door mu daanu.

Thank you. fay naa la. tey lamb ji delloo njukkal koo xam ni euh, jëfal na réew mi notamment jëfal aussi moonu lamb. waaw xaalim xam nga ne liggéey na Sud am na dimanche bu lamb jotee tase ñëpp Sud FM la ñuy déglu mu amoon écoute yàlla def mu jóge fa dem RTS di ñu bégal keroog maa ngi wax si premier lancement am 2STV ma ne ko xaalim yow mi daan bégal nit ñi si télé yeeg rajo. tey képp kuy war na ñëw sa bés mi parce que moo ñu ko moo ñu ko tàmmal moo tax tey amateur yi ñëw nañu si suba rek ñu ngi naan tribune yi la ñuy raxas bàyyi gannaaw yi ma ne leen boo leen bàyyee gannaaw stade bi na fees tey mu ngi nii arène bi fees na parce que amateur yi supporters yi mbër yi mu tëgg am nañ solo mais terewul ñëpp a ñëw wuy si Khadim képp koo xam ne xaritam nga ngay doomu ndeyam ngay amateur làmb tey ñëw nga si bés gis naa fi ay amateur yoo xam gëj ñëw làmb tey ñëw nañ làmb ngir Khadim Samb gis amateur defar ko teraanga yëkkati nag jox ko di wane relation bi nga xam ne amateur yi am nañ ko rawatina ak monde làmb waaw xam nga nag symbole la senegal nag boobu tey amateur bu ñu amoon lu ëpp loolu dañ ko koy defal moo tax amateur daje yónnee ko nag sagal képp koo xam ne Khadim Samb ak ay mbokkam parce que mooñu ko ji bu ñu amoon lu nag def ko mu jël bés bi tuddee ko président Macky Sall moo ñu def la arène bi ñu ko si delloo njukkal di ko si ñaanal ak soxnaam Marème Faye bari ne lu mu dimbali ci ñu ma xam ñu feebar mu dimbali leen moom Marème Faye yóbbu leen Tunisie si mouvement si euh, fondation bi kon nag tey ñu ngi koy gërëm di ko sax di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér parce que am na lu mu fi def ni mu defal ay amateur ak ay amatrice moom Marème Faye ñu ko siy gërëm di ko sant moo tax tey xaarim bés bi bés la bu rëy si ñun parce que président de bi République tabax ñu tabaxal arène bi yàgg nañ ko topp mënuñu ko am Marème Faye dimbali na ay nit di leen fekk donc si fondation Servir le Sénégal kon nag tey loolu dañ leen di delloo njukkal di leen ñaanal yàlla gudd fa nag wér di ko ñaanal xaalim aussi di remercier képp kuy amateur ku ñëw tey si euh, si arène bi ngir xaarim sàmb ngir dundal làmb parce que làmb euh, deewul il faut nit ñi xam ne làmb deewul buur làmb mu ngi fi mu nekkoon du question ay mbëri mag rek ñooy dundal làmb déedéet xale yi xale yi mën bëri lañ donc làmb ngi dund na ñaan yàlla mu continuer jërëjëf président merci tey lamb di delloo njukkal koo xam ne il a rendu service lamb rendre ko aussi la nation sénégalaise ngeen fekkee teg moom ci lamb xam ko it baax mooy El Hadj Xaadim Samb. jërëjëf xoolal ku bëgg a xam sa bopp da ngay sa cosaan ku sa cosaan reer doo xam sa bopp Samb li ko dal euh, war naa dal géwél bu ne mooy bëgg sa nawle weexal sa nawle. du la tax a ñuul ñuulal sa nawle du la tax a weex fexey na ba marqué empreinte am bien que juddoowul ndakaaru Common Town la waaye fexey na ba marqué empreinte am jóg ànd ak le président de tous les sénégalais muy le président Macky Sall ak soxnaam di wax lu baax yéen a nawle mi yëpp jàmm kon bu amee bés nii rek la bés bi war a mel moo tax folklore bi nga fi gis yëpp xam nga lii kay waxoo ci si lamb daw rabin may ndeb ñëw ñoom di ko ci nag kenn ku ci nekk woy man mi micro central daf ma li ma bëgg mooy aada ak cosaan rek laa soxla aada ak cosaan loolu nag mu soxla woon loolu lañ koy defal yal na ko yàlla defal jàmm. loge officielle baa ngi noonu ñëw wu si tey euh, Khadim Samb pour service rendu à la nation tey maa ngi gis tey le ministre des sports Makhtar Ba mu ngi noonu tey toog. mu ngi noonu Malick a ngi noonu ci kaw yor joow gi monsieur le ministre des sports toog jox na ko joow gi waaye le président de la CNG le directeur Alioune Sarr moom itamit toog ak ki nga xamante ne tey moo alaaji Xaadim Samb gi kenn desul waaye géwél yi aussi kenn desul gis seen alaaji Bekaay Mbay mu ngi noonu Bekaay Fatou Mbay waaye maa ngi seen le futur maire de Louga Keba Kanté moom itamit waaye mu ngi noonu waaye maa ngi gis les jeunes responsables ku ci mel ni Libaas muy loo xam ne tey wax dëgg dëgg dëgg dëgg làmb delloo na njukkal xaarim sàmb te bu ko delloo njukkal tamit Cheikh Omar war na ndax dëgg dëgg defal na ko làmb ndax ku ne xam ne ni xaarim Sud FM la nekkoon daan fa def ëttu sud ba ni fa jugee dem RTS teew mu boole RTS ak sud aussi di fa di fa def liggéey bu am solo ba retraite am jot ñu xamal ko ni carrément da nga war dem retraite waaye teewul bi mu retraité taxul mu bàyyi làmb kon mu ngi noonu di un hommage mérité aussi ah di hommage boo xam ne dëgg-dëgg

ndax ku yàgg ci njaw di njaw yàgg na ci yëf yi macha allah def na ci carrière bu rafet kon tey bu demee ba def lii woo ñëpp ministre des sports ñëw toog devant la Aline Sarr ministre de CNG ñëpp ñëw toog toogaay bi rafetee nii ñëpp ñëw mu sargal ci président de la république ak soxnaam Marème Faye Sall kon gàcce nga laa maa Xaadim Samb booy ànd ak nit ànd bi. guy gi mooy dugg si noonu maa ngi nii guy gi moo yéeg noonu moom itam ndeysaan waaw di nuyoo noonu gis nga barki démb rek lañ ko jël suuf daga ci Cheikh Omar mu taxaw ne pare naa pour mbër yëpp pour defal leen affaire waaye notamment bu ñu ma joxee Gris Bordeaux ma jël combat Gris Bordeaux ak kee xamante ni que moom mooy euh, moom mooy guy gi combat bu logique la parce que tey parce que Gris Bordeaux ku ne xam ne ne blanche mu ngi bëgg a bëri Balla Gaye la fi daaw jeej ba tey amul combat mu nekk loo xamante ni que euh, lu logique la waaye gis nga Lamine Thiam Dogo mu ngi noonu toog moom itamit mu ngi noonu toog jeex na gis nga jeex na naan ko maa ngi yëg muy ree di ree reetaan reetaan ñaawalaat Cheikh loolu baaxul loolu moo tax ñu ñëw fi mais du dara ak utaale combat di wax ne gars yi lañ génn na xaftaani tooy na xaftaani xaftaani na tooy xaftaani Moussa est-ce que gisoon ni que ñu ci bari dañu mise woon sa diggante yow ak Garga combat boobu c'était le combat du déclin Moussa tey jàpp na ne combat boobu du woon combat bu waroon a ñàkk parce que tey combat bi ci position bi mu ko indi tey indi la ko ay difficulté waaw non pas difficulté sax gars yi ñooy daw ñu ngi woo gars yi ñu ngi waxtaan ak gars yi gars yi ñoo moytu rek mais difficulté parce que tey ji lamba ji ren ñi dàq bëri ñoo daanu ndaanaan rek ñoo daanu ren parce que loolu day am ci lamb daloon na fi bi fi ñoom yi gëni nekké ñoom ñëpp punkal ngalé daanu won kon tay bu ñu ñëwaatee lu melni am dañ koy sant yalla mais nak na gaay yi gën na gaay yi gën gaay yi comme ñan. gaay yi non ñoom sages ñoom am neex. sages mom moom carrément. Moussa ndoy mu nta daanu barki dem ci garga ma koy jël. wa mom tamit dafa daanu daanu wat wa dafa daanu ma daanu dañoo ñu def kan ñu xol kii meex waaw loolu lañ bëgg. Sa Thiès Moussa Ndoye wala Moussa Ndoye Amanaya. waaw yooyu ay combat la yooyu ay combat la combat yu daw yaram la te combat neex la tamit waa loolu combat la. lépp gi dañ ñaan bëre ci seen biir. waaw mais nañ ñëw nañ ñëw ñu bëree léegi xaalis la nañ ñëw ñu bëree. nañ ñëw ñu bëree non loolu du combat maa ngi Reug Reug du combat. lu tax Reug Reug suma rakk la suma frère la suma lépp la démb rek ñu ngi déggante mi ngi États-Unis yàlla ko yàlla defal jàmm Reug suma rakk la une fois dama koy wax du ñu bëre waaw du ma bëre suma rakk la suma frère la sama doomu ndey la. mais copinage boobu ci làmb est-ce que du yàq. rëg rëg rëg rëg laa wax rëg rëg suma doom doomu ndey la suma xarit la mais ngi des nañ ñëw ñu bëri la muy wut xaalis làmb làmb sport business la léegi waaye nañ ñëw nañ ñëw ñu bëri. dafa wàññi safara si. laay tey la waa safara si da nga ko wàññi parce que contre Garga indi woo safara Moussa. tey la waa gën ay bu ñu ñëwaatee ngemb fii tey la waa la gën ay dama ko yokk barki Serigne Babacar si yokk naa waaw doxagu ñëwaguñu mais maa leen xaar ñëpp nañ ñëw rek ñu ngi wax ndànk-ndànk mais maa ngi leen xaar. Sa Thiès ama neex Yékini Junior ay samay adversaire lañ amul benn problème yes Cheikh Omar arbitre sifflé na ci diggante Calcio ak Aïdara ndeysaan Karcio Kër Masar mbooloo ay dara écrit Songane Gueye oh doo ya yaa songu yaa daanu Karcio daan na ay dara Karcio daan na ay dara ay dara moo songu moo daanu moo songu moo daanu ñàkk waaw waaw sama yaay maa ngi lay fay. waay euh, ma xool confiance bi sax dañuy wax ni tuuti bu jot loolu la ñuy gis ci yow mais tey nag da cee raw. waaw tey li topp sama ginnaaw mu ta topp sama ginnaaw muy côté mbër yi mobilisation bi rafet na muy côté jàppale ñu nekk si jos balaa bi ñëpp tey dañoo ñëw sama monsieur le maire tey dafa ñëw muy ba Babou Ndoye ak monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall tey moo tax tey nii ma ñëwee nii boole si waa caari gépp dañoo jóg billaay walaay taalaay loolu laay yëg moo tax ma ñëwee nii te ndam moo ci topp barki borom waaw loolu laa gëm si kàttanu borom. loo wax. ndam rek. waaw ndam rek laa wax tey jii ndam rek laa wax moom lay yëg te ndam laa bëgg te dinaa am bu soobee yàlla. daa am ci lu mu jógee daa am ci lu mu jógee la da borom man maa ngi tey doon la neuf février. boole si mu jóge woon ci defet tudd Alioune Seye deux delluwaat si defet muy deux man maay borom la deux te man maay drapeau jigéen ñi sama yaay nga. te damaa jël drapeau Thérèse Faye jóge ba jël drapeau Aïda Mbodj ah sama yaay ndeysaan première dame drapeau coupe bi maa ngi ñëw. yaaraat naa leen ñoom bokkal làmb ji naa leen bu mbër yàgg naa xas mbër yàgg naa xas loolu loolu du loolu du deux mille deux mais am nga combat mag sa digganteeg Bour Sine. waaw combat bu rëy combat bu rëy champion la. loo indi. waaw ñoom waaj dara waaj préparé. xeex wala. lépp mën na nekk xeex mën na nekk bëre mën na nekk incha allah yaa way. nee naa ko am na seen junior lu muy gën a nekk combat bi lu muy gën a yàgg lu muy gën a nekk nee naa lu ngeen ak. waaw mën na nekk mën na nekk lu ñu wax mën na ma yàgg foofu sax wax na dëgg mën na ma yàgg foofu wax na dëgg waaw. yaa na tàkk jërëjëf ci yéen loolu dëgg la. waa sant rek nekk sama entraînement ànd sama ganaay yi ñoom mbay guy gi ak barajan sama père di ko sant bu baax baax maaf gi ak ñëpp sama boy sa combat mu sama combat ak Sisa parce que taxaw na avance bi moo des rek mais taxaw na ça wax ngeen ak promoteur ba tax. lépp ça mois de avril lay doon koy ma Fatim koy rapport. waxal ak ñun. bëggee naa bu wér a wér a wér. wax tey sa adversaire. waaw di ko ñaanal jàmm rek yàlla may ma ndam si kawam kese. gars yi dañ ma ragal ba 52 laa joxantaloon rendez-vous fii tey pour may ko revanche mais dafa ragal nee na ma bàyyi ba le 23 bari ñi a yi dañ ma ragal ceinture noire la moo tax garde corps waaw des na si yow dama xiif déggoo ma ne bu na sañoon a 23 ma bokk si. journée Xaadim Samb bi neex na neex na trop macha allah ñëpp wuy si nañ ko yàlla fay na ko xolam si bés bi feeñ na si ñu gis la tuus mu neex mi nga tuus ah. tuus mi neex mi nga. waa tuus mi xam nga rek doon na la rek. delloo si tuusu ki ngeen doon tuus nu mu tuddati Forman. Forman Gueye sama nijaay. sama yaram la vingt-huit bi passé lañ ko doon sargal. gis nga si de. kontaan ñaanal ñëpp di ñaanal grand Serigne sama nijaay. Ousseynou Faye Omar Ndiaye senegal ñëpp tëngeej bàyyiwuma kenn ñooñoo may jox xaalis su may tukki ñu jox ma billet avion na mu ma cere. verre yi jox. maa ba mu ne. sama doom. waaw waaw waaw. wa di gërëm waa Tëngéej rek xam nga. nañu bàyyi ku ñu jox avance ama neex nga dellu daw. nga ne dañ koo ragal dañoo ragal ama neex. dañ koy ragal ama neex dafa bokk ci làmb ji. dañ dafa war a bëre nuñ koy ragale bu amee gàllaaj nga wuti gàllaaj mu entraîné nga entraîné. waaw maa ngi nuyu waa Tëngéej bu baax a baax a baax di kontaan tey dama indi mbër mu daan muy ya. gaar yàlla na kat yàlla na kat victoire bi ci quoi di ñaanal Sénégal yàlla fi jaama yàgg quoi waa ngeen ma ngi leen di bah bu baaxa baax. say combat fan lañ wa sama combat ñu ngay dox. ñu ngi koy yaakaar si bi ni legui ni sax bunda mu ngi fi ñaan ci bunda ray baax xawma daal lu ngay wax waxatee sax mu ray baax daal xéñ wa affaire yoyu xamna na mu ngi xéñ ma ci si yoon wi. ci bu naree wa bu baaxé xéñ amma mu ngi baax mom day bëre Cheikh Oumar lan moo xew Cheikh Oumar lan moo xew. li day yàq lamb Bour Gueweul li day yàq lamb. li day yàq lamb. li day sponsor du ñëw sponsor dootu ñëw si lii. sponsor dootu ñëw. boo jekkatee boo jekkatee da ngay xam da ngaa jekkati nga bëree lu la yàlla may nga jël waaye doo jekkati ba pare jël beneen initiative boo xamante ni ci loi bi c'est normal. loolu bokkul ci lamb. Aliou Seye deewa ngay xataraayu Cheikh Oumar ñamu àndal tey combat bi combat bu ko jaraloon la combat bu ko jaraloon la est-ce que lamb ji dina am Cheikh Oumar est yaa ngay wàcc est-ce que dina kay kay ñàkk jariñu ñàkk jariñu Cheikh Omar lu muy jooy ah excuse nous kër lañ bëggoon jël baax buur tey nit ku baax yableeti ci magam ray xarit sam xam nga ku tuddee Thierno Ndomba tuddee nga Ousseyn Ndomba ñooñu seen maam la ñuy wax jéem-jéem ba booy jéem ci ñoom jéemal lu baax Thierno di dox ci social tey jii président Macky Sall lépp lu mu am biir Pikine ci lu baax bu dee 100 pour cent ba ceer la du dox ba bëccëg guddi lay dox boole rassembler autorités yi nga xam ne ñoo war a ànd ñëpp jàppale président tey ñu tuddee ko xaadim tuddee ko làmb ju mel nii ñu ànd ak délégation bu mag defe naa ne fii nu toog tey muy Pikine xol yëpp dañuy sedd. ndax stade bi biñ koy taxawal Ouzin ak Thierno def na ci lu ne kon nag boo ñëwee ñu ànd ak Ouzin doom ba muy borom jéem-jéem ba borom pikin ci laa bokk Sénégal gépp xam ne Thierno Ndom li mu def ci biir pikin jafe naa dindi kon booy dem ci Ouzin xol yëpp dañuy sedd Ouzin Ndom ba moo nekk nit koo xam ni dafa social Ouzin Ndom ba guddi wala bëccëg ci ordonnance yi Ouzin ba guddi wala bëccëg sant nit ñi moo ko war social jàkka yi kon buñ ko tuddee lu mel nii ak magam war naa mën a ñëw taxaw ma lay xamal ni li nu koy ñaan Pikine di ko ko ñaan mairie de la ville bi daal na ko jël teg ci loxo ñoo ngi koy ñaan ñëpp waaw. aca Ousseyn Ousseyn ñoo ngi lay ziar. maa dol doon lay ziar. tey wuy si le doyen Khadim Samb. waaw waaw dañu ñëw euh, jërëjëf maa ngi lay nuyu waaw tey dañu ñëw.

nekk si arène nationale bi nga xamante ne président Macky Sall moo ko fi def ñu ngi ko siy gërëm di ko sant. diggante Thierno ak waa pikin koo ni Thierno Pikine mooy la c'est l'homme social. waaw loolu moom loolu moom dëgg la comme ni ko Aziz waxee léegi rek moom nitu social la lépp lu mu am yéene na ko waa Pikine yéene na ko kenn sax ku bokkul pikin kon nag li ñuy def du lu ñaan ko yàlla rek li muy mëbët li muy mëbët bëgg ko pikin bëgg ko Sénégal yàlla defal ko ko. jërëjëf Ousseyn. kii moment bi moo lan moo xew exactement. wóor na borom Touba barki Alxuraan ak waxtu bi xaw ma lu xew ba léegi man daal jékki yéeg naa gis ñu song ma barki Alxuraan musuma gis nga am problème ci làmb wala nga jot ci làmb sama xulaay taal la. boo bële yaa gis may calmé barki Alxuraan mënu ma la wax lii moo xew man daal gis naa ñu may song ma xam ne ñii dañ may gaañ. su ma la xëy dëgg na borom tax gis nga ay séen dañ ma doon wóor parce que su ma sama kanam mooy la xam nga ni ku ma man tey ma taxaw si stade lu mës am nit ñëw di ma dóor musul am. mais pourquoi combat bi am pression bi mu am man mënu ma ko. xam na ni buur bëree moo ma gënal barki alxuraanu ko def saa caaxaan man musuma def lii bëree ba bëgg. billahi ndax ki nga xam ne ni moom mooy la de guerre koy jël daf ne da bax man na mu ne ma tey dafa am lo xamne ni mënu ma ko wax fi ak Alioune Sey combat bi jeexul ba Alioune Sey dal ki nga xamne ni mom moy mom moy liru dial ni ma yow xam nga ne yak bour yen yéenay samay xarit waye émotion bi ba mënatu la wax combat bu neex yakuna combat bu neex yakuna na Ama Sène Junior ak Bour sen Fadim Ama sen mom rek mo nek ci digg géew bi fimeni tak ne morceau bu wax ci bop bi wala saan buur ngi noonu est-ce que day boole Kajoor ak Siin moom Fatim ah. yeexal ko ay lu suur danga koy eh. waaye ñu cokki cokki bu neex Fatim mais ama kuy dalul. waaye ñu ngi cooki cooki bu neex kanam. waaw waaw ñu ngi cooki ñu ngi cooki. bëgg naa loolu Fatima. yow loolu rek nga bëgg man bu dang maa jaaxal. day neexal bés Fatima. waaw wax nga dëgg day neexal bés. ah. gis nga Ama ngi enchaîné. mu ngi enchaîné. xeex ba cooki ba cooki ba cooki ba Fatima cooki ba cooki ba buur Sénégal buur nga dëggal boppam buur nga dëggal boppam doon dóor mu daan doom maa dóor mu daan doom maa kaaw doom Fatima maa kaaw doom. ma kaw doom Bour Sine ngi enchaîné Bour Sine ngi enchaîné Bour Sine eh eh eh Eumeu Sène guerrier la daan na ko daan na ko Bour Sine est un roi Fatim daan na ko Bour Sine c'est un roi waaw léegi nekk na roi léegi nekk na roi nekk na roi Bour Sine nekk na roi Fatim Malick Seck mu ngi noonu Cheikh Omar combat bu neex combat bu intéressant Eumeu Sène senior daan na Bour Sine jël bu amul benn werante waaye li ñuy déployer rek mooy incident yi am tey ci stade bi dëgg la lamb yàgg naa toj waaye lamb war na dépasser époque yooyu bés bu mel nii niveau de sécurité bi war na gën a élevé ndax tey kilifa yi yu toll nii tey ñëw wuy si le doyen Khadim Samb waaye teewul bés bi neex na ñàkk jariñu ak Aliou Seyde mujj ñu bëre waaye grand combat bi neex na Eumeu Sène Junior daan na ki nga xam ne moom mooy Bour